waaw. ah ñaar lu mën lay wóor it. maa ngi lay ziar. moom tey dañu seetlu ne ñaari palmarès yi boo ko gisee am na différence am na différence bu moo waral ngeen jël Ama da ngeen yaakaar Ama da ngeen ñëw rek daal ko dem wala. Ama donc tey ñun dañ doon xaar quatre mois ma lañ ñoo war a bëri loolu ñu ngi lay jaajëf bu baax Mate, mate. Ini boxan kau, boxan kau.

mais di leen jox surprise ñu xaar di leen jox rendez-vous aussi ñu xaar surprise yi nga xamante ne war a am ci événement bi yëpp parce que événement bi ñu ko laaj ñu ko xam-xam ne doon jaaxal macha allah jaajëf jàmbaar jërëjëf jàmbaar jërëjëf Lamine Lamine moom di nga wax si combat bi de ah? combat bi di ci liggéey yëpp bi réena de ta dara xew ko ñaari combat waaye mbëri xiifal bi yàqal bi nga gis ko ci supporter dégg nga ñaari mbëri yàqal te ku la xiif sa borom boo ko bis bu rëy la bis moom ak bu war a déclencher léegi nag pour loolu am foog ñu def lépp ci jàmm ak salaam dañu woote ci parce que man pour man supporter la daanaka jot na la ñuy woor mais Lamine dañu gis ne Ama Baldé mu ngi topp Modou Lo depuis 2010 ko Balla nga xam ne Luc Nicolaï moo ko invité woon fële sa Mbour Ama la ko njëkk dëkk mooy ko dara mais lan nga gis pourquoi Ama Baldé topp Modou Lo ah, moo ko lu mën a xew moom na ko gëm na ne day daan Modou Lo waaye nag lu ko Modou Lo waxoon da ci bàyyi xel bu baax. mais sa pronostic si lamb ji. ah du ma technicien ah? Ah, en tant que non en tant que chroniqueur. ah suñu fàllu Luc Nicolaï ñu ngi nii ñu ngi door a génn si otoom. face to face. waaw waaw waaw gis nga xaaral ko. kii yaa ni ngay def dañ tolloo. Ousmane Ousmane rek Ousmane Ousmane micro yi dañuy dajale benn place voilà. yaa ngi dëgg ful bi xoolal. dinaa bëgg a jël seer. tey jii ba ñu ci saal bi war nañ def ak Dakar loolu lépp ñu na mën a man moo noonu nag li ñu ko lay mooy dëgg si. mu xat lool ba kenn ko am. mais am ngeen combat de Modou Xarañ Lo le savant de l'arène. waaw ah mais Modou Lo est-ce que xam na ku bi day moom tey. ah doomu doomu doomu Falaye Balde la. muy doog am combat. laaj ko ci entrée bi. Ama Balde mu ne moo mun sept fois maanaam sept Modou Lo Ama Balde moo doon excès de confiance excès de confiance jour combat. waaw xam nga tey loolu yëpp si ay communication mbër la maa mun kii sept fois wala maa mun kii dix fois mais ñoom ñaar ñooy dugg si géew bi te moom am na sañ-sañ pour jàpp ko duma ko daan. te incha a si kàttan yàlla noonu lay demee. Aliou nee ko da koy dugal daal. xam nga dafa ne ay mafia bi su bokkul xiir da lay dal mais bii du ma du ma ko jox ay xiir. bii ay mbol dal laa jox. waaw. ah jotoon ngeen laale Mbapat de en 2006. Modou Xarañ Lo dafa leen bagage wax ko duma daan métrage la defam Malick métrage Malick Diop Malick billaahi wallaahi tallaahi Modou lu mu baax ñu ñeer ko. Modou Lo tous les plans xeex ñu xeex ak moom ñu bëre ak moom ñun ñun pare nañ donc loolu ñun ñun benn affaire la ñuy ñaan kooku Aliou Mané woon benn affaire la rek poids bi ñu ñëw Ama yor Ama yor xool nga Ama yow ah, man kan mooy nekk man to doo entraîné mais poids bi ci poids bi laa laa laa. non dëgguma man kan mooy nekkal man doo entraîné man mbë mbëru Pikine yëpp dama dama nekk ñoom samay mag lañ sama kilifa la Eumeu Sène sama kilifa la kii nag sama rakk la dëggal ma États-Unis billaahi wallaahi tallaahi pour combat bi te am am ndam ñun ragaluñ loolu. mais man bëgg naa la laaj rek quoi man euh, dama dégg Ama Baldé mu ne euh, tey jii nga xam ne roi bi maanaam sama sama euh, ni ma leeree. waaw bu fekkoon ne sama àjjana noonu ma dee ma ma dee mooy li ma la wax nii xale xale day capturer ay image xale day capturer ay image ama Tyson mooy magam ama Baboy mooy magam ama Eumeu Sène mooy magam te ñoo ñëpp dañoo dugal roi des arènes Pikine kon léegi nu muy demee. bu mel ni kon yéen yéen a doon. waaw léegi ñu doon ci dëkk bi ñu ngi tey 6 avril 2020 nga xam jàkkaarloo wala le roi des arènes comme ni xale parcelle ba l'espoir de Rock Énergie mooy jëndal ak Ama Baldé. sëñ bi ko doon ba dégg dinaa donc voilà.